Jada, you stole your hey, name from another rapper. You stole your album name from another rapper. And you even stole a crown from another rapper. Funny nigga. Bena posa tanga tokele digere Deguloma de, anadangate Baken gasi tag manam dangsi parede Deguloma de, anadangate Ladi laita sare boite fume mune Deguloma de, xanaa danga te bakkan nga si teg maanaam danga si pare de dégguloo ma de xanaa danga te laaj bi lay ñëw am na almet sa son si waat lu Natal. nataal mooy sa nataal fee góol emal sa koñ magic dog ma hajan. xajaan te moo nebe du ma defaat man bàyyi naa golo buy sa Wordplay, no dog, dangai pat ipa Sa album balanga kau tu dia dangai side bubah Aba clan pulit town, yo dangai sound Sering aksi talu bayi bangka tangga kau Lan ga am, nyata ga am sa bank account More what, more what, eh, buy new why See me do my talk TV di wah ni cici Excuse my friend nigga, CC So don't guys see this adun kau jenda DD Rap money nigga, we here Dek uloma dek, anak dangga dek Pakai kasih tag manam bang si parede They will on my deck, anadangate. Ladi laita sare bate fumemune. They will on my deck, anadangate. Pakan gasitek, manam bang si parede. They will on my deck, anadangate. Ladi laita sare te fumemune. Gabanyo na japok man sa motane. so mu tudd nga ñëw pour moo tali sa boppa dara nekku fa lu du dëkka si pale te ñu la jàppale sànni la no doo leen dimbale tudde sa boppa maay foog ne yaay jot daan ma déglu ni ga fi ma jot Album nationwide, nigga bul ma cokkotaan Yak some beef, my baller rap jokkotaan No góot no góot that's a lost war Fanga nga nekk nigga ma dugga si boss first door stupid nigga yippin yappin on a talk show you wanna buy this bars yeah they cost more flame chicks flexing up can last enough. sando i amuñ in mel ni public holidays su ma rap duggu la waxal astafurlah mang si teg ak kon wax bi duggu daa déggu Paket kaset tag mana dang si parede dégguloo ma de ana danga te laaj lay tasaare boy te fu mel mu ne dégguloo ma de ana dangate Pakai paket nga si teg maanaam dang si parede dégguloo ma de ana dangate La di bi lay ñëw tasaare te fu mel mu ne funny nigga jëndalal sa papa wala sa yaay moto dox bi bari na nigga